day lay dolli kattan dolli la doole ba pare dëgëral la këj këj këj këj këj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 maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu sénégalais yëpp di ñëw di nuyu partout dans le monde di nuyu waa diaspora bi di leen wax euh, zénitu ren bi du yomb ci kàttanu yàlla ak baaxam. alors naka nga gisee initiative bu invité Mame Ndiaye juróon na coow euh, ci ci coow la créer naam ci coow la créé parce que maam nag tout ce tous day créé coow euh, naka nga gisee initiative bi ñu invité la nga war a dem Zénith pour wax ak ki nga xam ni jàkkaarloo ak kii di Sidi waa man xam nga dëgg du neex man sama lépp coow la te sama lépp ci coow lay commencé tubaarkàlla macha allah moo tax tubaarkàlla nee naa la coow jur na lu ne ci àddina waaye man coow sama njëglaay la ndax heure bu ma coowee rek yàlla dama ci tere dafa am nit ñoo xam ne dafa am nit ñoo xam ne coow da leen a jëkk am ñoo xam ne tey bu ñu coowoon doo leen déggaat moo tax dañu sant yàlla nag ndax coow naa coow naa fi mu ne bañ jox ma visa su Mame Ndiaye kese lañ invité ba du jur frustration ci ñeneen ñi euh, parce que maam rek moom mooy dem moom lañ invité mu war a waaj ak équipe dem donc loolu jàppoo ni boo ñëwee dina créé waat ay ennemi Mame Ndiaye ou bien. ennemi moom même bu ñu yóbbu woon ñëpp yàlla may na ma ko pare te dara du ko dindi ci àddina parce que jiitu rek ennemi la. Hmm. Hmm? dama jiitu nag ci réew mi fi mu ne fi mu ne doo wax benn xale te nee woo Mame Ndiaye Savon te tubaarkàlla nag Matar xam nga ni nelawut te mataar ku ku ku ku deful bruit du la jël te ku deful bruit du ànd ak yow te xam nga ni zonique bi ci kattanu yàlla ak mbaaxam bu dee li yàlla maye woon nangoo ko dama koy dëb ba mel ni suul ak bëjëk. est maam pare na pour dem Zénith ak dëkk coowu Zénith ak aussi ñu naan maam du dem maam parewul sax pour dem est-ce que aussi euh, loolu yaa ngi koy bàyyi xel. man la moo may teree dem xanaa ci Matar lay dépendre mais man pare naa te Zénith ci kattanu yàlla maa ngi wax waa jas bi yëpp ngeen préparé. te xam ne wàcc ma daan naa la waru ku daan da ngay féete kaw Zénith nag yàgg nañ koo def tubaarkàlla ma allah waaye Zénith bari bokkul ci eh, kàttanu yàlla laa leen wax. waaw gisoon nañ bi nga xam ne amoon na xewoon na biir biir biir five mu juróon tax ba seen diggante ak Sidi Diop wala ak Matar mu gën a ratax ba yàlla def ñu invité la invité d'honneur bi Zénith Olof Ndiaye da koo wax daane cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ. tubaar kaal te loolu la ko yàlla nammee woon mënoon naa yeg ci plateau bi leneen dal ma wala dara dal ma ba duma dem dem Zénith te tubaarkaal la lii moo jur Zénith bi nag kon nañ koy sante yàlla rek di ko julli ci yonent bi te xam ni à tout moment la Youssou Ndour wayoon day ñëw yéen a ngi waaj du ngeen ca dem man maa cay dem ci kattanu yàlla ak mbaaxam mais nit ñi waxoon ne kat que Sidy Diop beneen ba duggee ci live sa live bi dafa yemale teg la sa place parce que dugg na fa la woon sa xaalis intéressé wu ko lu woon mooy mu wëy la jaarale yoon bi fi nga xam ne exactement yow mi en personne bu demee ba marraine la ci biir soirée bi c'est parce que daf la yëg moo tax. waaw yow bi nga naan Sidy Diop daf maa yemale. yow xam nga ne man Jal Diop sànq maar fukki penc ak juróom-ñaar lu ma fi wax téere la te kenn du ma yemale te yow loo leer na la kon xam nga ni man bàq bu ne dégg naa ko tubaar la xam nga ne yamale ma ci sama biir live yombut ndax live boobu ku ko seetaan da xam ne ay waxi nit dafa am tuuma dafa metti te nit buñ la tuuma as gor buñ ko tuuma tuumalee day génn wax traité goro ko yëngal mu génn wax ndax tuuma lañ ko wax. dafay baax parce que nit ñi ñu ci mel ni ay jumboor yi wala ñeneen ak ñeneen defoon nañ sorti wax leen bu euh, euh, kii nii daf la dafa am num la num la num la tontoo moo laaj ma sama nawle danga may laaj sama nawle. jiitu ci aar te defoo dara ci aar rek daa mitti xol. jiitu ci aar te defoo dara ci aar di taaw aar daa mitti xol sa xol du neex kooku doo mën a bëgg ki nga xam ne moo mujj ci aar yàlla teral ko ci aar te boo jiitoo ci aar te yàlla teralu ci sa aar sa xol du neex weela maal Mm. alors euh, ñu ngi doon xaar aussi nga nga def tapas ci ci ci Zénith bi nga créer polémique ci Zénith bi mën ko jaay ñëpp ñu ngi doon xaar loolu parce que Mame Ndiaye euh, elle est virale ci réseaux sociaux yi surtout TikTok donc lan moo tax ci euh, ay live doo def communication wu Zénith bi donte marraine nga ci. mais non non Zénith bi buzz bi mi ngi nii parce que ñëw ci 2S rek war a rëq bi kii bi rek réew mi day daal di daanu à tout moment. xam nga li ma la wax euh, ay wax amatul ci biir ci ci ci ci ay wax amatul te man euh, polémique chaque jour dama koy dama chaque jour damay créer polémique ñu euh, ñi sénégalais duñ ko comprendre parce que dañ naan dafa bëri histoire dafa bëri kaw boo nekkee ci réseau sociaux pour ma wax ko yéen ni nga xam ne xamagoo leen boo bañee fay ci kàttanu yàlla ak mbaaxam soo bañee fay soo bañee fay da ngay da ngay da da ngay def ni maam Ndiaye Savon léeg-léeg nga fëgg sa dënn sa caq yëngu léeg nga écarté léeg-léeg réew mi daanu léeg-léeg nga wax ay bal la man nag ay bal jig na ma ndax bala ma teg fi ma ne tubaarkàlla mais nan ngay euh, euh, naka ngay waajee sa demu Zénith maam Ndiaye ak ñan lay àndal délégation ah, jaagar jaagar yi dem aéroport euh, maam naka lay waajee loolu bu soobee yàlla ci kattanu yàlla ak mbaaxam nanu xaar lépp sénégalais dama ne képp ku mës a tëgg senit waajal te xam ne ñi doon dem ñëpp mënuñu xale bi mën baa ngi. lan ci kaw seen bi ak Sidi Diop. loolu Zénith loolu loolu loolu réew mi de maam Ndiaye savon. bàq ba jub na. waaw laay laa xëy la laa maam Ndiaye yaay Serigne Fall Fallaw bu sa jëx réew ma càmmiñal ma rem bàyyi Serigne abdu Karim à mm. ah, tout moment réew mi mën na daanu. na beneen waaw man kaay ma yëgal la man dama am ay rab te dama ànd ak jinne joo xam ne ci kattanu yàlla ak mbaaxam jinne ji lenn la mën muy micro euh, micro yi tiim ma ak lumière bi tiim ma ma nekk ci kaw podium bu boobaa jinne ji day ñëw jinne ji bu ko neexee daf may def endo bu ko neexee daf may def rab bu ko neexee daf may def jinne te bu jour baa damay doon vampire di naaw ci biir podium bi. est-ce que stars yi dem ma yëpp Zénith maam gëm na ni moom mooy jël buzzu Zénith parce que ay stars yu bëree nga loolu yaa jël bës waaye loolu mooy laaju lan. maam gis nga dem. Ah, mooy star jàmmkat yi yi dem maam jël fa. star yi sax man la ñuy topp ñoom ñu ngay dem sax waaye xam nañ ni ñoom maam Ndiaye leen fa yóbbu maam Ndiaye ci biir Jenik ba mu def démarche sam dama doon bandi nee naa la li ci sët maam koy jël li ci li ci li ci maam sët koy jël te nag tubaarkàlla man bandi la. sa booy day demaale wala. moo ma yóbbu partout dans le monde. mais wax ko Diagne lancé benn appel ak nga xam ne ay fansam yi moom bëgg nga dégg dëgg képp koo xam ni mi ngi nekk France ak Europe ak fu waay mën ne xale yëpp ak may woo am na ci ñoo xam ne ñu ngi may envoyé ay kër ay lu nekk naan Mame Ndiaye ñun ñoo lay dalal Sénégal ñoo may xaar. waa ñëpp dañu ñëw te ma leen di wax ne leen bis bu ñu ñëwee dinañ kontaan maam Ndiaye dinañ gis beneen maam Ndiaye ci ci ambiance ci kaf ci foo di parce que ñoom ci caméra yi rek lañ may gis te xamuñu lan moo waral maam Ndiaye di ambiance. maam Ndiaye biir Zénith ca maam Ndiaye biir Zénith. <laughs> réew mi day daanu foo ne. lan la yëre wolof wala yëre tubaab lu ma saf. mais mais na leen wax aussi tamit ñu teel a ñëw. teel a ah, waaw a mën a dañuy teel a ñëw dañuy teel a ñëw. demal ci gars yi fële na la merci merci ma mais naka bàyyi ma waay. Eh, bu yàq image yow. mais Boucher sa xarit a ngi nii de Boucher. Boucher sa xarit a ngi. kii maag moom xam nga kañ la wax la. sa xarit la loo wax la. lu ma ko wax. Mame Ndiaye loo ko wax ban date la. ma bàyyi dama yàgg ba ak sëñ Tuubaa. lan la ban ay 2005. bébé laay moo ñu boole woon yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana bilaay ndeysaan wax ji bu bëree nii damay bàyyi nii wax ji bëri rek mais kii ba ma koy xam 2005 la ñu xamante di fréquenté chaque jour guddeeg bëccëg subaak ngoon muy xëy di liggéey bu wàccee man it ma liggéey jaay yàpp moo wàccee ñu dajee seen buntu kër chaque jour yéeg suñu moto man ak sama benn xarit dem taxaw mm-hmm. buntu këram 2005 ba tey nii mm-hmm. dafa yàgg yéen ñaar seen diyoo biir seen it maam maa koy tingom maa koy njëkk a tingom ci àdduna <laughs> mais loolu dina doy loolu loolu loolu loolu. ah non Mame Ndiaye maa ko njëkk ci ngom ndax Mame Ndiaye dafa bokk ci Zénith bi daa bokk ci Zénith bi mais Gallo. kii maa xam nga kañ la wax lan. dafa ma bàyyi dama yàgg bàq si tubaab lan la ay 2005 ñu boole woon yàlla na ko yàlla yërëm. fii 2005 lañ xamante 2005. moo tax wax bu bëree nii damay bàyyi nii wax ji bëri rek mais ma koy xam 2005 la ñu xamante di fréquenté chaque jour guddeeg bëccëg suba ak ngoon. dëgg la muy xëy di liggéey bu wàcce man it ma liggéey jaay yàpp. moo wàccee ñu dajee seen buntu këram. chaque jour yéeg suñu moto man ak sama benn xarit dem taxaw buntu këram 2005 ba tey nii. dafa yàgg. dëgg la ñaar seen diw biir seen it. Mame koy tingom maa koy njëkk tingom ci àdduna mais loolu dina doy waar de day wàccaxu de day wàccaxu de day wàccaxu de Mame Ndiaye maa koy njëkk tingom ndax Mame Ndiaye dafa bokk ci Zénith bi daa bokk ci Zénith bi mais Gallo ma grand Aliou Ziar de suba la de suba suba mais suba waaw inauguration bi incha allah kaayal ni kaayal ni boucher lumière bee moo tax xam naa ne kenn du fa xaj sax waaye ñu eh, ñu jéggal ma eh, rek. Eh, yow yow yow Boucher mënoo simple yow. Ah, man damay xamaa xam soo bopp te xam naa lu ñëwagul. kon wut nga waaw wut naa ay sécurité yoo xam ne nag waaw am na ay kilifa yu fay ñëw. te kilifa yooyu bu ñu ñëwee soxla nañu ku leen protéger moo tax jël naa ay sécurité yoo xam ne dañuy ñëw ñu gérer affaire yi quoi si hmm. jàpp. mais li ñuy wax naan Waly 5 millions la la jox loolu da koy confirmer wala. non Waly joxuma 5 millions. kan moo wax loolu. loolu yoonu loolu ñaata la jox. waale bu ma waa léegi jox na ma cinq millions maa léegi jox na ma cinq millions très kay man loolu lu may wàññi ak lu may yokk yoonu kan moo ci mais suba. waaw inauguration bi incha allahu rabbi bu neexee yàlla. waaw inauguration mondiale la. xam naa ni kenn du fa xaj sax waaye ñuy ñu jéggal ma rek. Eh, eh, eh, yow yow simple yow. ah non man damay xamaa xam sama bopp te xam naa lu ñëwagul. nga waaw wut naa ay sécurité yoo xam ne nag waaw am na ay kilifa yu fay ñëw te kilifa yooyu bu ñëwee soxla nañu ku leen protéger moo tax jël naa ay sécurité yoo xam ne dañuy ñëw ñu gérer affaire yi quoi si jàmm. mais li ñuy wax naan la la loolu da nga koy confirmer wala. non Waly joxuma 5 millions joxuma xaalis loolu yoonu kenn newu ci. ñaata la la jox. waale bu ma jo waa léegi jox na ma 5 millions. voilà la laaj ne la 5 millions loola jox tontu woo ma. waaw léegi jox na ma 5 millions. comme kay man loolu lu may wàññeek lu may yokk. bu ma joxee 5 millions joxu ma 5 millions lu may wàññeek yoonu kan moo ci nekk. Ah. c'est bon c'est bon. day lay dolli kattan dolli la doole ba pare dëgëral la këj këj.